للوصف نويت ما يجدد سنة أخرى أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك سيطان كاتي نيوغي في نك البقات المباركة كرسرين أمدي مصطفى الكريم di juri cheikh ahmadou mbake ma ul khiyat Muhammad serigne mohamadou adjara mbake mom aramin badi mom seer eh, sohna buso mom eh, mam maram mbake ñu tok nak ak wéyjuram wu jigen di sohna aissatou sille bu ci le daraman lo xam nak nit wéyjuram mi ko jur yar ko wala nek ak mom ci ak tambalem gën la ko xam xam nim fi nekke xamit liko fi jele xamit ay jikom ni muy jëflante ak mbokk yi euh, ba tax na kon mbokk yi ñu ànd ak soxna Aysatu Silla euh, mu waxtaan ak ñun euh, ñu laaj ko rek ci sëriñ bi mu leeral ñu ci lu mu xam ci moom diggante bi mu gane àdduna ba bi muy dugg ci loxol sëriñ Saliou Mbacke ak jaar jaaro yëpp mu mën cee ñëw ñun mu mën a doon loo xam ne dina jëriñ ki nga xam ne fekkewutoon mu mën ko soññ bu baax a baax kon Mame Boye ñu ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax a baax nag te di am mbégte eh, seex yow jataay bi te di la ñaanal tey ñaan suñu borom yàggal la fi lool may la wér lool ba yéene nga am ci taalibe yëpp ak ñun ñi njaboot gi yëpp nga xam ne dag ñooy def say sëtu bopp yàlla suñu borom mottali la ko ci barki borom Touba kon Mame Boye salaamaaleykum. Ah, li ngeen def day lu ma rafetlu la lu ma neex la itam lu ma bëgg la itam. waye nak dama bëggoon ngeen defoon ko bamay nit <laughs> bamay nekké nit boba day bu ngeen ko defoon dina am solo lool ndax kon dina ci xam lu bari lool luma mëna wax waye yi jamono fekk na sama wir manki na lool ba xamatuma dara li ma ci xam dal ginaaw xass ngeen ñew mom bay accès ah moy nak seen tànk yi ngeen dox day ah yal leen ci sa borom defal tawfiq ak xewal waaye ci li nga xam ne lii de nangoo naa ko ci gémmiñu sëñ Saliou day bañ ndax dama ñëw ci dafa ñëw fii ma toog nii tey fekk baayam nekk fi moom sëñ Saliou ñun ñun ñëpp nu ñëw nuyoo si bindikee rut sukk ci kanam sëñ Saliou baayam daal di ni yëkkat sëñ Modou Ajar bàyyi muudu ci sama kaw daal ko ne jëpp bu sëñ Saliou ne ko kii may naa la ko te booba mi ngi bu bàyyi gudd yanam may naa la ko yóbbaale ko doo ko fi ba xam nga borom <laughs> àll doo ko fi ba kat mu ne daal di réer sëñ Saliou daal di réer waaw waaw man kay nangu naa ko juboo nañ ci itam waaye nag ndey ji moom dama ko bëgg a dénk ba ci kanam daal di na ma soxna ni ko yëkkit ne ma soxna si dénkaat naa la ko ba ci kanam ndax booba bàyyi yéegu du gone gu ndaw la bayam nak mom dafa defon borom jël ko amul giil ci bëgg lu bax ni nit ku bax nak ku mucc ayib señ amdi amul moroom nit la ku bax bi señ sari waxtane ak ñun ñaanal lu bay bëgg dem nag légui mu daal ni ma ah, soxna si mané ko mbacké mu ne ma dénkaat na la ko Cheikh ahmad mi dénkaat na la ko mané ko mbacké dénkoo na ko daal di fa baat yor ba sëñ Saliou dikkaat fi nag yoon woo xam ne wii booba nag la ko daal di laaj yóbbu ko ba mu ko yóbboo nag ah booba du mag da ko daal yóbbu dem na got dem na njàpp ndal foo ne dem na fa ndax booba ba mu ko yóbbu ko ne ndaw la moom it daa bëgg gone moom sëñ Saliou rek waaye lépp lu doomu aadama yi liggéey ci kaw suuf si ci ak morite ku taalube liggéeyal na ko sëñ Saaliw ci lu ma fekk man mii day kero ba ko fay jëlee yóbbu ko yeex naa koo gisaat ba xanaa ba ma ko gisee sax gu ne xamati naa ko moom itam mu nekk fa rek ah di déglu ndigal rek ba saa borom dogal baayam ma fekkante na feek baayam saxal bi muy ñibbisi waaw fek na feek baayam kay mana nak li tax ma di ko lima fi mu mun it li ma xam wax sax ab asaka ndax xamatuma dara xel mi dafa jaxasoo dem na ba jeex nyak ñàkk wér gi nag sax ne du googa mag waaye wér ci laa gëj a def bu yàgg yàgg xam ngeen ci dara sax xam naa ne sonn ngeen ci <laughs> waaye bi nga ni mom ci got yóbbu na ko njàppandal yóbbu ko njurul ne néeg ba fa doon fanaan nag nag wi nga xam ne nag yi leen sëñ seelu yi sàmmloo nee na bët yi doo <laughs> ko xoolee doo ko ñeme waaye nee guddi gi dara dox sama diggante ak nag wi samay bët dama ko ciy teg ba asamaan si nit la nag koo xam ne ku njaxlaf la woon ku nangoo sonn la woon ku nit la koo xam ne moom nga doon defe ne du nit ndax xamut sonn naa xamut luut nekk ca lam ne rek xam naa ne sëñ Saliou nee na ma day gërëm naa ko yoon wi ñu ko mujj siyaare ji ma ànd ak moom fii ci Touba Mbàkke dem fa lam ma wax de mooy sëñ Modou mii yaakaar naa bu bëggee lu mën na ko am ndax jàmbaar la lu ma masaa santaane moo man mbaar kenn du ko ca man ba tax na sant naa ko gërëm naa ko ànd na maak moom dem booba defe naa man de xaw ma ku ma ti waaye man mii dem maa ne woon te bopp yoonu ak sëñ Moodu moomee waaye ànd na ñaar damaa xamul nag sama yaay la baayam la ma waaye am na keneen ku nu raxoon daal waaye lii moom wax na sëñ Saliou toog naa baayam toog mu sëñ Moodu mii day fekk booba ma naan ko man de damaa bëgg mu jàng mu ne ma ah, jàng de baax na waaye defe naa liggéey baax na ndax lu waaye liggéey de yaa ko moom te sëñ Mourou mi ne gisaguma doom aadama boo xam ne bii mën nga ko ci liggéey barke sëñ Touba fennaluma ko ko loolu de moo fi daa soonu nii ci këram gii fi Touba nu dem ma di ko wax mbirum njàng noonu mu ne ma njàng moom nga ciy wër de amu ci solo li muy defa am solo liggéey te xam naa ne menn moroomam mënu ko te ku am positif la te nangoo sonn ah man de mbàkki kon tubaarkaar la man de lu baax rek laa bëgg <laughs> mu ne ma waaw lu baax bu dee moom nga bëgg defe naa rafet naa ci njort ah kon de baax na ndax sëñ Saliou moom xam nga bari wuti wax waaye loolu de moo ma ko wax ci gémmiñam maa ngi sukk nii ci kanamam man na kanu ñetteeloon baay bàyyi a dajare laa xamatul waaye am na keneen ku ca àndoon ca nuyoo baak siyaare ba waaye sëñ Saliou moom dafa ma a bëgg sëñ Modou yaar yoon ñëw na ko fii ci kër sëñ Amdi gi bu ci ne fa la ma fekk keroog ba ñuy jël si sëñ Modou gone gu ndaw la hii keroog kay li nit jooy ci kër gi kenn duutu ko jooy barke borom Tuuba ndax gone gu ndaw la yow amagu sax juróom-ñetti at ah nga ñëw ne dama koy yóbbu ko koy nangu kenn du ko ne doo ko yóbbu de yóbbu rekk lan ci man waaye keroog bàyyama ñu ñépp ba sëñ Maodo bañ ko sànnee ci oto ba muy jooy di dem kër gi kenn di su fi rongoñ kenn lekku fi ndax yërëm maa ne duñ ko yërëm rek xam naa ne war naa ba defe naa daal war naa am lu war a mat fukki at bu ko jegewut bu ko matutit jege na ko yoo xam ne saabat bii dalu ci moom amu ci ma benn xam-xam demuma fa it yónneewuma fa it xanaa dénk ko sëñ sa ëllëg muñ rek ndax lu metti la woon nag ndax dafa ndawe woon waaye nag ba mu ñëwee fii bis ma nuyu ko ne ko ah bàyyi mu dajare ndax ma ngay jàng mu ne ma ah, jàng de moom xam naa ne defu ko waaye la muy def du ma ne dara gën a jàng waaye la muy def am na solo ndax yàlla fayut waxkat yi wacc jëfkat yi te ma lépp loo moroomam mën a liggéey mën naa liggéey yaaram Baye Modou xamut sonn de <laughs> ba muy gone xamul sonn naa xamul dara lu nalax nalax rekk liggéey sëñ Modou waaw sama góor bu góor a <laughs> ku amoon xorom la yanja yanja ba rawe xar <laughs> moo tax sëñ Saliou da koo bëggoon na bëgg ba yoon wi mu mujj demee nga xam ne booba mag la Eh, sëñ bu nu demee ba nuyoo ba siyaaree ba noppi bu nu demee ba doxit ay jéego yu niiw ah sëñ Modou kaay leen ñu ñëw dëppaat ñu may taalal leen ma ñaanal leen daan ñuy ñaanalaat bu dematee ba sori mu ne ah sëñ Modou mu ne Mbàkke mu ne dëpp leen ñëw leen ma ñaanal leen yetti yoon daal dina ko def <laughs> yoo xam ne yu ci ne Sëriñ Tuubaa xam ne ne moo nuy woowaat nu taalal suñu loxo mu ñaanalaat ah ñeena ma nag moom bi amee xul njàng mi nee na ma far na jàng ba mu mokkal far nit ki moom lu ko yàlla booleel dina ànd ak moom ndax njàng moom bëggoon na ko waaye tubaarkàlla sama xol sedd na ci la ma ci bëggoon lépp cim njàng def na ko ci ba tax na man amatuma ci woon dara lu may jàqkat yi waaye nag sëñ Saliou itam moo ma dalaloon ab mbaakol mbaakol day bëgg alxuraan <laughs> ni man daam lu njàng leen koy gënal waaye nag téew daraloon na ca sama xel moom sëñ Saliou ndax noonu na man day lépp loo xam ne moroomam ñetti moroom mën nañ koo liggéey moom kenn nangu na koo liggéey ndax xamul lu métti xamul sonn naa te loolu man mii ko jur xam naa ko bu rafet sëñ Modou musta xam lu man de <laughs> dara dara lu man xamu ba nega moom lay jëfe lenn lu muy jëf lu ne bu dee lu mu war a jëf lenn na ca ko def muy juróom mbaa fukk moom noonu la ma ne noonu la ko borom bi bindee nit la nag it ku laa biir ku bëgg lu baax la itam yàlla nag moo yor lu baax mënu ma ne am na lu baax mënu ma ne amu ko ndax kiy joxe lu baax moom mu ngeeg lu baax muy yàlla ah moom it doon na ko wut xaw ma nag am na xaw ma amul moom <laughs> ah damay wax dëgg rek hmm. wut gi moom def na ko xam naa tool sëñ Saliou ba kenn mësu ko caa man ndax sëñ Saliou ci jëmmam xam naa ne jàmbaar la jàmbaar nag day bëgg jàmbaar waaye sëñ Modou moom su mësu koo def benn yoon xam naa lu mu war a xam ci njàngit xam na ko lu mu war a xam ci xam-xamit gëstu na ko ba xam ko kon nag ah ñun de duñ def lu am ci moom yaakaar rek tey ak ëllëg nag waaw. am na ngërëmul sëñ am di ci néeg bii ma toog day defal na ko fi saako yi ceeb yoo xam ne daa dikk di ma xaw ma sëñ moo lu mu bëgg waaye lu bëgg de waaye lu mu bëgg dana ko am barke sëñ Touba am dee ma ko wax seere la ci mi ngi ma tëddaloon ci sama lal la ko fekk xaw lu mu waaye lu mu bëgg dana ko am lii de bàyyam seereel na ko te xam naa ne lu baax lu ne seer na ko nee sëñ Modou mii day xam naa ne la koo xam ne kii lu bëgg rek saa borom dina ko ko may ndax moo ko jëfe ndax day dikk bett ko feeg lu rëy loo xam ne rek du sax lu mu koy ñaanal far nag bu xasee am la mu bëgg ñàkkatul dara waaye nee na ma day sëñ am mii dina de néeg bii ma toog tey jii wax na ma ko fi bul benn du ñaare ndax sëñ Modou dafa xër day lam koy joxe rek da koy yéem ba xam na ne moom du xamati lu mu koy wax lu di nga am li nga bëgg rek te ko am loo bëgg doo mer <laughs> nit bu amee li mu bëgg du mer. nun ah nun day taalibe la ñu ah, laa masa doon sëñ sëñ Modou ci ci jëmmam lu mu mën di doon rek ci ci ci ay kéemaan nëbbu na ma ko ndax nanguwuma ko woon xam nga àdduna daa metti xam nga bu bu la ko dul xam bu la ko waxee di nga ko waxam déet moo tax lépp lu mu ci mënoon di def day ndax bañoon na ko ba kër baay sëñ daam busa la féete woon na fay bind ak jàng ba ni ñëwee ci sëñ Saaliw foofa rekk la féetoon di bind ak a jàng nangu a feeñal ci boppam dara te mayit am naa luy sama mbir man duma fenal kenn sama jëmm ji rus naa ci fen ki ma bind rek laa ko seereel li ma xam ci yow rek laay wax waaye lépp lu ma xamul ci yow duma ko wax ndax bokk noonu génn ndax ca kër gëlañ bi mu fa ñibbisee ba mu jógee daara sëñ Saaliw ba ñibbisee daa bere ma nga woon kër bàyyi sëñ daam bu sa toog fa cib néegu boppam waaye man mun suñ kër añ ak reer ko fi daan indi bu noppee raxasu na dem xam nga kooka moom loo ko waxal ah <laughs> da du wóor ndax bu doon jigéen nga ne dañ doon tëdd waaye góor la ma ngay tëdd ci kër góor ñi ma nga féete ci kër boppam nga xam ne moo fa nekk ak boppam ah nu ma koy xamee lu muy def ak a wax moo tax duma ko mën a xam yaayam man <laughs> man de toppatoo gi ma toppatoo sax mënuma koo wax sama kàddu de balaa daanu barke Sëriñ touba defali na ma ko billaahi bu ma ko yónnee aw xel lay samp dem fii mu toll laa wax kat waxuma ci ngone fii nu toll teem mu kon bàyyi moodu nàngam barke borom Tuubaa aw xel la koy defe ci man maa doon koo xam ne kii du ma teg kenn lenn waaye lu ma ko doon tey laa nàngam laa bëgg ren daat na ci du ko yónni kenn de day cay solo daalam ba mag te it bàyyi toog na ne ma sëñ Moodu mii day xawma lu mu lu mu bëgg dana ko am lii ma la wax lu dëggu la moomi ñan mais seere la ca kon nag maa ngi ciy rafet njort ci moom maa ngi ciy rafet njort man de lu ma bëgg rek tey jii dama ko nangam mënuma koo ñàkk du ko kenn ki ba ko sama loxo ak muy kharis muy lu man di doon rek xam naa lu ma bëgg de bu ma ko nee maa bëgg loolu moom lu ma leer nañ ñi la bàyyi mit ba mu daataa dem lam fi yàggade yàggade moom gërëm na ko fii nee na ma ci néeg bii nu toog tey xaw ma lu mu bëgg waaye la mu bëgg dana ko am la nga bëgg nag duutoo meer lii day moo ko nangul naa ko ci làmmiñ te moomi ñang mee sax tey bu ma sañoon tey ma toog fii seere ma ci ndax fekke na ko waaw ndax fekke na ko waaw sëñ Modou moom wax dëgg ku baax la laa xam ci moom ak ku yéwén ak ku bëgg njàmbaar ak ngóora loolu daal mooy samay xam-xam ci moom ah li ma ko jur nag taxut man lu ma waxal kenn lu nekkul lu may waxal nit rek nay lu ne fii ne tey jii kero ba mu jógee ci tukkeem bi jaarut këram de du yéen laa neloon fii la jaarte te ba ma woowee téléphone dama ne du ma jaar sama kër de ci sa jëmm ji fii yow laay njëkk a ñëw barke Sëriñ Touba ci fii lay njëkk a ñëw nuyonteeg man saafoonteeg man ba ma yewi ko mu doog a dem këram nit la ko nangoo topp sama ndigal kon lu ma ko ne nangam bëgg naa ko suba ba ngoon maa koy yàggal bu ma ko yónnee xel lay samp barke Sëriñ Touba loolu daal xam naa ko ci moom te bu ma sañoon ma ne feeg bàyyam ba ba nëga nii ndax noonu mu ma fonke la fonke woon bàyyam ku bëgg ay kilifaam la lim ma woon moom ak mbaax la ndax nit ki moom war ngaa lam la wax def ak lam la waxal war nga koo mën a seere waaye nag mënuma koo seeree lu dul day bu dee bu bonee it baax la ma woon waaw man bu bonee it baax la ma woon bu ma ko nii nangam laa bëgg dina ma ko defal bu ko yónnee mu dem lépp lu ma bëgg suba ba ngoon du tëdd ci lal te defaluma ko loolu moom ki ma bind jéppiwuma ci ndax nit lu muy wax da cay seer yàlla ah la muy def nag leneen lu mu di doon ah xawma ko te wanuma ko waaye li ma wan de mbaax gu mat sëkk la ma won ak bëgg gu ma sëkk gu ma bëgg loolu moom xam naa ko te baayam tey jii bu doon dund lii ma wax dina ko dëggal ndax li ñu dund yàggut waaye def na ci lam man ak la mënut ndax lii kat ba muy wax sëñ Modou mii de ma lu mu bëggut waaye lu mu bëgg dana ko am te moom it ngërëmul sëñ Fallou la amoon moom baayam sëñ Fallou la xasaayaloon di ko liggéeyal ba xëy ne ko taalal say loxo ma ñaanal la moo ne nijaaya ma de soxna Yumi Bousso day ak soxna Awa Bousso ñoo bokk bàyyi na bàyyi ma ak mbaa ndey ak bàyyi te soxna Awa Bousso moo jur sëñ Fallou soxna Yume Bousso moo jur Astou Touré ndeyam kon nag waaw ndeyi sëñam di kon nag yaakaar naa ne mbokkam sëñ Fallou waaye nag a ah, nit ki moom li nga ci xam rek fa nga ca war a wax dëgg yàlla daal li ma ci xam mooy man fonkoon na ay way juram te lu masaa am rek defa na leen ci la mën ak la mën te buñ ko yónnee mu dem te jox nañu cër ah man de jox jox na bayam ak ciéri ndax fekke na waaw waye ñun daal suñu wétu bop gi sikku ko waaw sikku ko bayam sikku ko waaw kon nak dañ koy ñaanal fan wu gudd bo and ak wër te sax dak nak ci ragal na nangoo jaamu yalla te lepp lo xamné recc ab recc recc la ci yalla nako ko borom bi jéggal ci barké borom Touba ma ngi koy sant diko ko te diko ñaanal fan wu gudd and ak wër ak le ci barke borom Touba jërëjëf te mayit ma ngi leen di ñaanal yeen ñi ngir yàgg ci ginnaw mu yàgg ci seen kanam sa borom may leen jàmm may leen xéewal faj aajo yi saafara jangoro yépp ci barke borom Touba sant na leen ah man damaa wéru <laughs> maa moo dajara ka xooroma woon waaj maa moo dajara dekk nañ ci kër fukki at ak juroom di ndax man sa bay da faatu saa maam Aminta Njaay mi maam Moodu Ajara yor ñëw ca dëj ba indaale ma jàpp ci sama loxo indi ma falaan ni ba xëy dem kër noo ko bokk dëkk maa ngi moom maam Moodu teqali ko ndax jamono yooye am nay dongo dañ nit ñi maak kum maak ami mbàkk mi bokk ak sëñ am di ndey ak baay noo daan dem ca tool maam Moodu Ajara ba ak dongo ya xurle lan daan bay ak tool yu ñuy wax ñëf dik booba noo ngi xëy tool ndax lo boba baye xewon wa ke sëñ mbacke jaxate ni ñun ñi ñepp boba lañ daan bayi tool ku ne da nga amon tool di bayi waye ken xamuto lu xey bayi rek waye nak ah mahmoud ajaray di amon ngërëmul seigne touba ndax neena man de dama daan liggey ba daan fi béréb nelaw fa neena ko tedd ke ma fek ne new tankam kucc kucc ne ma ahmadou mané sama der daari daw dem nee bu koy defee nak ree da koy jàpp te du rek ndax nee sama nyawa bi ma ñaaw maam da jaray waxal bopam loolu kat ah waji eh, Ahmadou doy nga war lol de nee na wii naa ca la ma doon def liggey ba rek ah ñii jàmbaar lañ yal na nu yàlla sedd ci seen tuyaaba ja sedd nu ci seen barkel ga may nu jàmmi àdduna ya, ak àllaaxira yalla bu nu sukura yalla bu nu gis tiisu ndee yalla na borom bi teru teral na jéggal nu sunuy bàkkaar te jéggalu nu sunuy bàkkaar ci barke borom Tuuba jërëjëf